Simon Faye maa ngi lay nuyu. maa ngi fay si maa fay. Simon Faye nga nekk secrétaire ah. général bu syndicat national des travailleurs de la santé du centre hospitalier régional de Ziguinchor récemment ngeen déposé benn préavis de grève am ay euh, euh, réclamation est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun euh, largement ci li ngeen di réclamer exactement. voilà ba garaaw ba ma nuyoo seen auditeurs yi nuyu aussi maam seen équipe bi yëpp euh, vraiment gis nañ taxawaay bi nga xamante ne yéen ñu koy taxaw saa yu ñu jooyee rek ngeen tàllal ñu euh, seen micro pour ñu mën a wax suñuy jafe-jafe donc euh, effectivement dañoo déposé bésu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi benn préavis boo xam ne dañu ne woon day day démarrer à partir du vingt cinq janvier deux mille vingt quatre Euh, préavis bi nag am nañu weer pour que euh, kilifa yi ñi nga xamante ne bëgguñu ñu dem grève pour ñu mën a waxtaan ak ñun waaye li nga xamante ne moom lañ gis fu mu toll nii moom mooy euh, suñu borom kër déjà moom nee na moom politicien la day dem campagne que donc amul jotu engagé ay discussion yoo ay négociation yoo xam ne du ko jekkali man nag nee naa ko carrément directeur dama bëggoon juste nga xam ne. Euh, président de la république ba mu lay envoyé hôpital régional bu Ziguinchor du politique mu la la fi envoyé waaye daf la envoyé à l'hôpital régional bu Ziguinchor pour non seulement nga joyante liggéey bi au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor waaye aussi nga toppatoo wérgu yaramu population wu Casamance ak li ko wér nga képp waaye euh, jafe-jafe yi buñ ko naree tënk jafe-jafe wu kàddu boo xam ne doo ko respecté maanaam da ngay xaatim ay protocole d'accord waaye doo ci jëfee lenn bi ci njëkk moom mooy euh, directeur damay fàttali ne signé na ñetti protocole d'accord ak euh, ak ñetti antité hôpital régional bu Ziguinchor muy CNTS bi nga xamante ne mën naa ko doon euh, piloté ba vingt quatre octobre deux mille vingt trois parce que ci laa door a ñëw nekk secrétaire général Sintras jële Sintras syndicat bi gënoon tuuti hôpital def ko syndicat bi ëpp doole. waaye aussi directeur dafa signé protocole d'accord ak intersyndical bi nga xamante ne man syndicat bi ma bootoon dafa bokk ci intersyndical bi directeur dafa signé protocole d'accord ak médecin yi waaye liñ ci seetlu ñu ci protocole d'accord yëpp boo ko dajalee directeur daf ci respecté wul li ci gën a bëri waaw parce que li gën a soxal personnel bi defu ko digoon na ne dina jël ñaar fukki stagiaire parce que hôpital régional dama bëgg a fett fàttali ne euh, stagiaires yi fa nekk nekkul ay stagiaires. c' est juste que dañu ne administration kayit la xam mais hôpital day utiliser ay nit yoo xam ne depuis fukki fat depuis fukki at ñu ngi liggéey hôpital régional bu Ziguinchor nekkuñu di jàng waaye dañuy occuper ay postes yu permanent xam nga euh, donc euh, ñu ñu leen di liggéeyloo te mënuñu am leneen lu dul euh, ci autorisation de stage ñuy utiliser ay système de renouvellement renouvellement yu dul jeex ñu voté woon ne ci budget bi deux mille vingt trois dinañ jël ñaar fukki ci ñoom. budget deux mille vingt quatre bi ni ñu ne dañ jël ñaar fukk ci ñoom mais waxuma la deux mille vingt trois mais deux mille vingt quatre ñu nekk ñu ngi en trente et un janvier tey waaye def defuñu ci lenn boobu moom moo nekk premier poñ bi ñu dugal ñaareel poñ bi nga xamante ne mënuma ko ñàkk wax aussi moom mooy hôpital régional bu Ziguinchor dafa nekk hôpital bi nga xamante ne moom moo gën a délinquant ci hôpital yi nga xamante ne man moom laa xam Sénégal parce que am nañ ay xarit fépp fépp fu nekk parce que hôpital régional bu Ziguinchor dafa mel ni li mu gën a aay moom mooy wàcc yoon. parce que ñëpp xam nañ ne liggéeykat buy liggéey li nga xamante ne moom mooy premier ak ak yelleefam moom mooy salaire am deuxième bi moom mooy ñu protéger ko ba nga xamante ne bés bu demee retraite dina am pension de retraite waaye hôpital man naa ngi fàttaliku ni semaine bi passée ci conseil de administration ñu ngi doon voté état financier wu hôpital régional bu Ziguinchor ñu ngi amel bor euh, trois cent vingt cinq million ci suñu xaalis donc xaw ma nag lañ koy waxee ci olof waaye trois cent vingt cinq millions ku ko mën a xayma nga xayma ko loolu dalay won ne non seulement hôpital régional dina tekk ci salaire liggéeykat bi war kee boole moom cëram en tant que patron war ko verser IPRES pour que liggéeykat yi bu ñu demee retraite ñu mën a fayeeku waaye defu ci dara ba deux mille vingt deux laa leen wax ne ci lañ ameel IPRES trois cent vingt cinq millions te directeur dafa newoon ci biir négociation protocole d'accord bi <coughs> bal ma euh, dafa newoon euh, lépp loo xam ne bor la bu nit amee hôpital ci biti saa yu ñu ko fayee bu génnee motivation bi ba pare dina jël ci xaalis bi ci des fukki fukki fukki pourcentage maanaam dix pour cent mu reversé ko IPRES pour que jafe-jafe bor boobu noonu ñu def ko loolu ci protocole d'accord deux mille vingt trois waaye ba fii may toog di wax ak yéen deux mille vingt trois jeex na amul benn bu mu ci def te pour pourtant euh, hôpital jot na ay koppar li nga xamante ne. ñu ko amee loon bor ci biti donte jot jotul lépp yaa ngi dégg mm. donc leneen li moom mooy aussi am na leneen loo xam ne yoon moo ko wax yoon moom moo ne boo jëlee liggéeykat bi ci cadre décret 74 347 bu 12 avril 1974 kooku moom la ñuy wax décret des non fonctionnaires liggéeykat boobu noonu ñaari at yu ne da nga war a xool salaire indiciaire am nga def ci benn pourcentage nga yokk ko ci salaire am waaye ñun suñuy agent yi nga xamante ne ñoo nekk ci décret soixante quatorze trois cent quarante sept def na depuis deux mille vingt depuis deux mille trois ba léegi ñoom ñu ngi liggéey ñenn ñi dee nañ ñenn ñi dem nañu retraite amul kenn koo xam ne par exemple euh, mus nañ laa calculer sa avancement ba keroog nga dee wala ba keroog nga dem retraite nga jël euh, les contractuels yi nga xamante ne ñoo nekk dans la convention collective du commerce ñooñu dañu ne boo signé contrat deux ans après après chaque année sa salaire catégoriel dañ ci war a yokk dafa am benn pourcentage bu ñu ci war a calculer ñu yokk ko ci sa payoor waaye hôpital nekkul di lijjanti loolu waaye li mu li mu gën a aay moom mooy ñi nga xamante ne amuñu jafe-jafe retraite amuñu jafe-jafe dund dund bu normal ñooñu ñooy nekk fii nii di ko laaj nankaan yokkal ñu prime lii yokkal ñu prime lii xanaa kay balaa ngaa yokk prime xanaa kay nga wàccoo ak ñaari ñaari droit wu fondamental yu travailleurs muy seen salaire ak seen ak ak seen ak seen situation sociale mooy seen mais hôpital lijjantiwul loolu lijjantiwul loolu ñu ñëwati ci dëgg ci décision soixante kii sept cent quatre vingt douze euh, du vingt juin deux mille vingt bi nga xamante ne euh, dafa décider ci revalorisation salaire u contractuel yi nekk dans la convention collective du commerce mu nekkoon xëccoo bu métti man ak directeur parce que moom loo wax mu ne moom kilifa yi nee nañ kilifaam yi nee nañ ma bëgg koo fàttali te wax naa ko woon docteur Marie Khemesse docteur Marie Khemesse gënuñoo jàng ñi ko wër gënuñoo jàng loi loi la mu appliqué nañ ñu ko deux mille seize appliqué ñu ko deux mille vingt deux mille vingt trois bu amaatee dañu ko war a appliqué te coow warul am waaye tur fi récemment la ci débu débu weer bi janvier ci la ma door a woo daan man naan waaw li nga waxoon wax nga dëgg waaye jël naa ay matuwaay pour ñu fay leen ko à partir de janvier bii nii ma ne ko directeur. waxoon naa ne da ngay yàggal jël rek da ngay yàggal jël mais tôt ou tard fii dinañ fi daje parce que texte yi ñoo bokk amul benn virgule bu ci changé yaa ngi dégg waaye bizarrement aussi keroog ba ma ko demee gis nee na ma waaw waa Pétain 20 dugg na fi génn fi waa Petit Sane nga am ne suñu bulletin de salaire foofu la war a jógee nee nañ non non dañu leen bett dugg na fi génn fi nee naa ko fay ko heure bu la neex mais na nga xam ne loi loi la. loi bi dafa ne revalorisation salariale bi dañ ko war a appliquer à partir du premier juillet deux mille vingt trois bés boo koy fay di ñu defal rappel yooyu parce que salaire yow doo bëgg benn fifteen manqué ci sa salaire kon nag ñun mënuñu perte ay dix ans avant que hôpital di ñu régulariser ñu tourné wëlbatiku saa yoo ñu war a fay dara nga bañ ñu ko fay toog ba heure bu la neex nga ñu koy door a fay loolu mënul nekk. loolu moom dafa jeex. Hmm. est-ce que euh, autorités yi réagir nañ par rapport ak euh, préavis bi nga xam ne def ngeen ko ak situation bi nga expliqué léegi. fi ma toll nii di wax ak yow autorités yi nga xamante ne ñoo nekk ampliataire ci euh, préavis bi ma déposé yëpp directeur rek moom moo ci réagir moom mooy woo na ma ne ma waa effectivement jot naa sa bataaxal waaye dama la bëggoon xamal ne instant yi nii ñu ngi jublu ci campagne te man dama war a dem defi campagne ci laa lay fàttali ne nee naa ko directeur. président de la république bi la indi biir hôpital régional bu Ziguinchor pour nga jiite ko dénkaanewu la mbirum politique li mu la dénkaane moom mooy jonenti hôpital régional bu Ziguinchor ak jonenti gu yaramu dëkkandoowu Casamance ak li ko wër waaye nag il a mal pris euh, dem na yoonam dem na yoonam donc man li ma mën li ma ko tontu moom mooy de toute façon man mënuma la tere nga dem fenn parce que amuma maqaama boobu waaye dama bëgg nga xam ne li ma yoon may moom laa def moom mooy déposé naa préavis de grève yoon nee na buñ defee weer te waxtaan boo xam ne par exemple daf ñuy jubóole amul bés bu may dem grève day légal daf daf may lew waaw su boobaa nag waxtu bi bu jotee lépp loo gis daal nga xam ne ñun la voilà. Euh, kon tey jii ban euh, message ngay euh, lancer président wala seeni ministère tutelle par rapport ak situation bi nga xam ni yéen a ngi koy dund Simon Faye waaw situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund li ñu gën a bañ moom mooy moom li ñu bëgg gën a dénoncer dañ koy dénoncer à trois niveaux te li ñuy wax yëpp c'est valable pour trois niveaux yi muy ministère de la santé et de l'action sociale muy premier ministre ba ci premier ba ci président de la république li ñu bëggoon moom mooy dama bëgg ñu xam ne boo duggee ci benn njaboot waruloo mën a nekk foofu di leen xaajale parce que li ñu gis moom mooy ci système santé bi dafa am xaajale bu ci nekk parce que dafa am ñoo xam ne dañ leen considéré comme ay agent de santé mu am ñeneen ñoo xam ne dañ leen considéré comme nekkuñu ay agent de santé man mii di wax ak yow daal mën naa la wax ne considéré ñu ma comme agent de santé parce que nee nañ aw ma droit am ah, ah, nampaayu dëkkuwaay te pourtant man maa nekk représentant du personnel man maa yore syndicat bi gën a am solo foofu noonu te man lépp lu médecin liggéey wala paramédical liggéey ko man bu ma ci deful sama liggéey kenn du mun a xayma li nga xamante ne moom la ñooñu liggéey man dama jàpp ne hôpital docteur ba ba balayeur ba tant que ñu ngi liggéey biir hôpital ñoom ñëpp ay élément wu système de santé lañu waaye fii lañ gis système de santé bi ñu ne ku nekkul fonctionnaire de l'État nekkuloo paramédical nekkul bokkuloo ci système de santé bi ba mu tax ba président de la république ci mbaaxaayam ñëpp fàttaliku nañ discours ba mu tëniroon ci Covid bi ba naan moom mu ngi door a xam jafe-jafe bi nga xamante ne waa santé moom la ñuy kii lan lan la ci lan la ci def après dafa tourné wëlbatiku joxe ndàmpaayu dëkkuwaay. képp koo xam ne da ngay liggéey ci santé waaye ministère am jekki toog génne benn benn yoon boo xam ne kenn xamul su mu kii parce que nekkul ci suñuy protocole d'accord mu ne waaw lii ñii lañ ko war a fay ñii bokkuñu ci mel ni ñooñu ñëpp duñu liggéey ci biir hôpital donc loolu ñu ngi ciy dox ay jéego temps ci biir ministère bi mais ci premier ministre waaye président de la république bi nga xamante ne moom moo joxe li mu joxe moom la ñuy ñaan pour na wax na Euh, premier ministre wax ministre de la santé ni li mu joxe nii la ko joxe ñii ñoo ko moom parce que ñu ngi koy wax loolu yi nga xamante ne waxu ko parce que yaakaar naa ne président de la république en tant que bàyyi ñëpp du jox benn doom bàyyi beneen doom donc euh, loolu daal lañu ñuy bëgg te déposé nañ préavis ni ñu ko yoon waxee waaye gis nañ ne euh, directeur lañ ko adressé gaa mais képp koo xam ne par exemple nekk nga ampliataire muy gouverneur ba inspecteur du travail ba directeur régional de la santé président ko conseil d'administration euh, ñëpp jot nañ ci kii bi waaye gisuñu kenn koo xam ne par exemple woo nañu pour jéem a dox ci diggante bi pour ñu saafara ko te ki nga xamante ne moom moom moom bataaxal bi moom nee na day dem politique nee na talul engagé ay négociation yoo xam ne du ko jekkali ah. kon nag bés bu ñu déggee o de du vingt bés bu ñu déggee ne personnel hôpital régional bu Ziguinchor dem nañ grève nañu xam ne kon ñun ñu ngi jëfee li nga xamante ne loolu la ñu yoon may waaye ki nga xamante ne moom moo waroon éviter loolu ñu egg foofu noonu kooku moom moo deful moom moo doxalul li mu war a doxal merci beaucoup Simon fay ñu ngi lay remercier ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. naa ñun di jaaf jaajëfal. voilà ñuy fàttali ni Simon fay yow yaay secrétaire général bu syndicat national des travailleurs de la santé bu centre hospitalier régional de Ziguinchor jërëjëf. merci jërëjëf merci beaucoup. merci jërëjëf merci beaucoup.